Parce qu'il ne faut pas oublier que le politique, avant de nekk un politicien, c'est un citoyen. Donc sur des questions citoyennes, la société civile forcément se retrouve avec les hommes politiques dans ce combat, tout en sachant qu'on n'a pas les mêmes objectifs at the end of the day. loolu c'est important à le signaler li amaat solo ba amaat solo ba am solo mooy ne gis nga réew mi mod bi ñu koy gérer façon bi ñu koy téye façon bi ñu politiciens yi di naxtaanee loolu lañu bugg rompre d'avec rupture boobu moom la ñu soxla et à tous les niveaux xam nga droit bi ñu am ñun tey ba mun a critiquer Macky Sall moom personnellement moo ñu ko jox ñun en venant nous voir waxante ñun ci ay promesses électorales am kon ñun dañu am devoir. rendre compte au Sénégalais à la fin de ce mandat-là ci bilan am et le bilan dégg nga ko mooy saay-saay au cœur. ak possible rien à voir rien à avec moom li mu présenté te li ñuy wax ci saay-saay au cœur moo doomu aadama mënu ko cee bind dindi donc loolu mooy le vrai bilan des sept ans de pouvoir de Macky Sall. man dama gis que ni ci entretien yi ngeen jot a def tout le temps da ngeen appuyé wu que ni li ngeen def mu mel ni que nit ku ñu dóor mu riposté quoi. c'est-à-dire à chaque fois damay gis arñu boobu ci yéen damay gis benn fukk boobu ci yéen que ni daw maa ngi nii li ma wax tey bu doon tey ma waxaat ko c'est-à-dire c'est problème lan moom métti kër gi ba nga xam ne métti na ko métti na ko ba waral tax mu mu riposté taxaw carrément ak manière saay saay saay boobu. mais li métti askan bi moo ñu métti xam nga li métti askan bi du dara lu dul fal nit mun la sur la base de quelque chose mu ñëw def safaan wa nit boo ko falee mu ne la man. juróomi at laay def du ma def juróom-ñaar nga fal ko mu def juróom-ñaar nax na la nga ñëw du ma def lu ëpp vingt cinq ministres def plus de quatre vingt nax na la du ma nangu transhumant bu bugg la yëpp ñëw nañ nax na la du ma jël sama rakk jox ko dara luy état mais waxuma la rakk waaye ay goro ñi ngi ci biir donc nax na la mais kooku noonu il est temps nga taxaw jon ak moom ne ko yow tamit munoo ma nax juróom-ñaari at di ma laajaat beneen yeneen juróomi at du ma la ko def. ok xam nga Sénégal dañu am benn dañu baaxoo benn mbir que ni même su fekkee ne sax baal ma ci terme bi benn kilifa buy taxaw di saw ci mbedd waroo ko wax ne eh, góor gi yaa ngi saw ci mbedd mi dafa am noo ko war a a waxee donc. ak ak waaw. léegi man loolu laa bëgg a demander nan nga ko mën a ma waxee bu dee buurloo ko wax ni ko góor gi yaa ngi saw ci mbedd mi lan nga koy wax. waaw mais nga ne ko papa sax. yaa ngi def lan. Euh, loolu bokkut ci maandu. yàlla dafa ne boo gisee lu la naqadi ah da ngay dem waxtaan naqarlu ko boo waxtaanee nga yuux ko soo ko mënee duma sax mu ba ko nga duma ko boo demee ba yooyu yëpp mënuloo ko nga dugg sa néeg te ju jooy naqarlu ko ñun nag tolluñ foofu yàlla dimbali nañu may ñu ñu xàmme ni dëgg ak lu dul dëgg ba pare xam ni yàlla bëggul lenn lu dul dëgg ndax moo ne kulu xaq walaw kaana muwaan wax dëgg donte dañuy teg paaka sa put di la rendi ginnaaw ba yàlla lañu gëm doomu aadama amewul màqaama ñàkk a nekk ci dëgg te duñ ko ko wax ameewu ko màqaama loolu loolu loolu dëgg la xam nga sànq li ma bëgg a wax tuuti mooy Sénégal dafa am benn baax bu ju def mooy lan euh, mag dañ koy war maal dañ koy jox cër donte sax su deko ne bu mag ba wormaalee boppam dañ ko war a wormaal mag yi fi wormaal seen bopp yëpp nit ñi dañuy ñëw di sujjóot sujjóot ci seen kanam mais mag yi xotti worma xotti worma ndaw ñi fen ndaw ñi sàcc alalu ndaw ñi turiyande ndaw ñi nax ndaw ñi ñàkk a ndaw ñi ñàkk leen jox jàng bu baax ñàkk leen faj ñàkk leen toppatoo jël benn clan ne ñii daal ñoo ànd ak moo man dinaa fexe ñu xaw a tane mag moomu waxuma la xotti war ma waaye dañ ko war a sax yóbbu teg ko ci penc ma ku jaar dóor ma ba keroog muy dee mag moomu loolu